ça, lors ça nous permettra de faire notre, la promotion de la commune avec le logo. On va croiser nos couleurs nous serons la 17e équipe. Si c'est 3, ça sera mieux. 3 Oui. Le code son argent et, le soigne. Ah oui, ardo. Oui. Ok, mais bon, 3 fois 16, ça fait déjà <laughs> bien. même les, même les ASC que nous mën la peut-être même c'est une maillot à l'effigie en fait de la commune l'effigie de la avec le logo titi ci ci maillot yi yaakaar un solo pour en tout cas parce que maillot aussi fou ne ça permet également de vendre de vendre en tout cas l'image l'image de la commune donc moi déjà j'ai vous me donnez après le nombre de au niveau du top management de la zone intégralement en tout cas maintenant pour les ASC on va voir je pensais à deux ça faisait 32 maintenant bon comme tu demandes de c'est bon c'est bon. par rapport à li nous commencer d'abord avec la vieille méthode avec la vieille pratique par exemple des subventions, on une partie peut-être de la subvention à la zone Voilà on nga jox à la zone maintenant tout temps tout en contrôlant la manière dont les subventions sont parce que l'année dernière la zone avait subventionné les maïs la 25 000, francs. parce que pour une première Pour une première. Vous auriez c'est vrai tu peux comprendre que l'organisation des matchs avec les dépenses afférentes peut-être les arbitres ça peut être je suis d'accord je suis d'accord je suis entièrement d'accord mais aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui la donne elle a changé. La donne de la chance, aujourd'hui, vous avez une source de revenus. Vous avez une source de revenus. Donc aujourd'hui, il y a une elle doit pouvoir être atteinte, être autonome. Être autonome. Et peut-être même, mais Khalissa ASI. C'est combien d'années Ban année ren Edouard. li nga rek mooy ci côté par rapport ak zone bi xëy na président wax na ne sax jaratul woon na kii ñëw waaye am na qui est membre de la aussi am na yoo xamante ne bu yàlla dogalee ñu bokk groupe bi ñun ñëpp kenn ku ne sa xalaat li ci war mooy nga koy yëkkati fi nga xamante ne foofu ngay njëkke avant ngay ñëw ci beneen bés yaakaar naa yàgg nga ci groupe bi xëy na boo yàggoon a toog nga ne ñu jégaan buñ sañoon ñu doxale ñu ci groupe bi yaakaar naa mën nañu kenn ku ne échanger kenn ku ne wax sa bañu ñu xool bañ solution ba yan activité yañ la ñuy def au niveau de la commune leneen li ma ciy teg aussi pour doyen Tine xëy na c'est pas question ma leen di tontu sax waaye daa jara leeral ndax man yaakaar naa muy jib di juuf seen di maam Thiaw mi di euh, góor gi ñu bari dem nañu ba booy dem sa koñ sax dañu lay wax naan booy yi ñoo lay wax naan te ñoo bañ ndax juste que li ngay appliqué ci biir zone bi bañ nit toog ne diw daa faral di bàyyi kale xëy na c'était une rek boo xamante ne dañ ko bëggoon a dugal ci biir waaye bu ñu ñëwee par rapport ak ci dépense yi kenn ku ne la ngay wax ci sa lamiñ maanaam fi ñu toog nii boo ko appliqué sa dëkk rek yaakaar naa ñun ñëpp bu ñu tasee teere jàmm dina am ndax kenn ku ne yaa mën a sensibiliser xëy na zone bi 16 membres bëriwul ñun mënuñu kenn ku ne mën a couvrir benn village mën a toog ak xale mën a waxtaan ak ñoom. man de sama koñ saa yu sampaa daan amee match xale yi dañuy xalaat sax pour buñ demee terrain defal naka su dul noonu ndax man dinaa fa nekk am déet loolu waxtaan ba may waxtaan ak ñoom ci koñ bi la kenn ku ne aussi yaa war a delloowaat sa koñ yi doon bu defatee réunion ba pare norme yi ñu teg bañ nañ ko ba dañoo ubbi ñaari groupe groupe boo xamante ne bii pour zone bi la groupe boo xamante ne dañ dañoo jël ay membres dans les ay sa ñu dugal leen ci biir pour bu ñu waxtaanewee dara pour ñu trouver consensus pour réeroo du am ñu joxe information bi foofu bu ko defee même gis nga réserve yi ñuy atte dañ koy defee noo xamante ne sax maanaam du du woon noonu ndax la maanaam dañuy jël benn réserve ñu ate ko ñun zone bi ba pare ñu dugal ko ci biir groupe nawetaan yi pour membre ASC yi mën a commentaire mën a wax ci seen xalaat ñu jële ci ay idée kon foofu yaakaar naa ne kon ji bi loolu liggéeyam la xëy na bu transparence doxlu woon bu ñëwee dañuy appliquer à la lettre ñu ne par force lii mooy am kenn mën na koo ñàkk a dindi côté boobu aussi d'une part doonte am nañu stade xëy na dépense yi mën nañoo wàññee ko d'une part mais tout début début et difficile xam na du yomb ndax ni mu dul yomb waa Ndondol dèjà miinuñu ay pass match yi te benn booy da koy wax naan match bi cent francs lañ koy pass mu nekk kon bàyyi ma jëndi ko booy yi chine ndax miinuñu ko xamuñu ko bu dee nangal ma da ngay gis stade bi fees mais nonol fii boo leen waxee paas néew ma dina am de waaye ñu essayé ca ñuy essayé ci biir aussi euh, li jëm ci subvention yi ay bu bëgg euh, maanaam ñu leeral la la dara sax kii membre yi fi jot a ñëw question boo ci bëgg a posé rek mën nañ mën nañ koo posé ndax yor nañu document yi mais aussi ci biir match yi ñu gën a jàppale suñu bopp ndax gis nga saa yu violence amee ci match suñu dépense yi dañuy yóbbu ndax euh, am na fi ñu match boo xamante ne euh, bii violence amee bañ boobu sax réeroo nañu ñun zone bi ci biir bay waaj a bàyyi nawetaan am bi ñuy démarré waat activités yi dañoo fay sécurité cinquante mille franc biñ ci paree ñu fay ay arbitre yi trente deux mille ndax ñëpp ñoo gisandoo woon violence bi ñu defoon arbitre yi arbitre yi dem bañ a ne duñ ñëwaati ndondol sax biñ ci paree nga fayal arbitre yi seen auto transport transport dix mille franc presque ci benn match yaa ngi bëgg a dépassé quatre-vingt-treize mille presque cent mille te jënalagoo zone bi ndox léegi supposons nag bu ñu continuer di yokk violence bi après fañ na dem da ngay dem ba final comme li dal li ñuy dal à chaque fois da ngay dem ba final doo am loo tegal booy itam après ay say ñoo fi nekk di kaasaat di wax naan kase ba daa tuuti te ñoom ñoo yàq nawetaan yi kon aussi ñu bàyyi ci xel ñun ñu jàppale suñu bopp a parfaitement